dalal la sa gan. en tout cas Maître ah, yaa ngi xeet da koy xeet lu man. waaw. Diop waaw Maître El ba pare. Maître man wàcc plateau bi. Ah, xeet naa def. maa ngi <laughs> eh, yaa jàmm. sant yàlla Joseph Bolt. yéen fu ngeen koy ma nga jigéen <laughs> soo bi mu bi bi mu yeewoo jigéen hmm, soo. pétain la fa bëgg loon bëgg loon fekk. pétain mel na. la fa bëgg loon fekk. kuy pétain pétain la bëgg loon fekk tribunal. astafurlah kuy pétain pétain la bëgg loon déet kuy kuy usine bolt. ah kuy pétain. kuy usine bolt pétain ay yos. dama ne dama ne <laughs> pétain la bëgg loon fekk tribunal. pétain xam nga pétain. yoo xam pétain mi nga xam ne day fekk day fabriquer ay wax di wax di dem di toog naan. mag mag mag kii woo toogoon démb. day euh, euh. saboté kay kii kay saboté bu rëy la. pédé la bëggoon fekk. astafurlah ku pédé. ah xaw ma pédé. si bàyyil bul wax nan ko bàyyi émission. waa dem leen laaj ko laaj ko. sérieusement non Me El Hadj Diouf ki yab na la. yow. yow yaa ma ko yab. ah, ah, ah ay yoon yab na la déedéet yow dama da nga ne salaamaaleykum maaleykum salaam maaleykum salaam. waaw moom wax waxam daal ne peut être dafay def. yow naa dafay def bari na. Euh, peut être nga bëgg wax rek. xam nga ah. ku ah, ah wax dëgg yaa wax de kii wa wax ñu continuer yow yaa ak pété <laughs> boo moo son yi bu la ah yi bu tontu son yi man bu ma dugal dugalal son yi bu man bu yow te xool ma heure bi ma dugg eh, eh, eh, yow. mi yaa wax wax. Ah, kii ko ko doon ah, kan <laughs> yaa ngi xuus xuus xuus xuus. dëkk démb rek lañ ko yar di sama kanam. waxuma de lu ma man lu sama yoon. waxal man léegi doo jóg doo jóg. déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet mi ngi noonu ñu ngi leen di eh, jaajëfal eh, muy eh, El Hadj Sa Ndiogou Mbengue ak Souka Mbaye ñu leen di remercier yéen ñi nu bokkaloon émission bi.